bureau sur le nga fekk mais si si jamais et ça bu sa dégg nii saa waay saa mu ñor rek Abdou la fi samay jeex naa naa ñëw sa sa puxus boobu dégg nga donc mbokk yi am nañu mbégte contentement di nuyu suñu papa euh, Serigne Mamba Sougou Waadaan di ko ñaanal fan bu gu yaram képp koo xam ne yaa ngi foofu ca Waadaan nuyu nañu tamit ñu ko ñaanal fan bu gudd góor gu yaram ak maître Fatima Fall responsable politique euh, foofu ca PDS ñu am mbégte contentement bu mag di ko ziare waaye di nuyu sama ñaari xarit ku ci mel ne Ndeye euh, ñu naan ko nekk foofu kër madame Ndiaye ca fan résidence ak Nena Sène ca fan résidence ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag di leen ziar waaye tamit di am mbégte contentement di wax joyeux anniversaire à Jaminatou Diallo ñu koy nuyu bu baax di suñu xarit de la part de toute la famille Diallo ñu koy nuy tamit di ci wax joyeux anniversaire à Nyanga Mbaye de part de sa sœur Basouli waaye joyeux anniversaire à Nabou Diop depuis HLM et toute l'équipe euh, Waaw Magazine ñoom ñëpp ñu ngi koy souhaité moom Nabou Diop maire Awa Fall ba nekk ca Almadi nuyu nañ ko waa Guédiawaye nag euh, ñoom ñëpp ñu leen di sant rawatina nag Fatoumata Goumbala Anta Diallo bu ma sekk Thiam nuyu tubaab tubaab la noble nag maa ngi koy nuyu bu baax bi nga xam ne moom moo wane rek euh, Mimi Touré maa ngi koy nuyu moom tubaab di nuyu tamit bébé Collé Sall Khoudia Sall Mohamed euh, Wade ñoom ñëpp tubaab ziar na leen Serigne Sang Ndiaye nekk foofu nag taalibe Serigne Sallou nekk ca PA ñu koy nuyu di nuyu tamit Jamila euh, ñu koy nuyu tamit bu sori waaye di nuyu tamit Farilaay Seck bu aji ndooy ca Cambérène sopp Koutiara Sidi Kane nag étudiante la étudiant la en communication di sama xarit yal na ko yàlla may ndam ci li nga ne moom la bëgg jublu waaye di wax joyeux anniversaire à Mami Yacine war na ak euh, madame Senghor Sicap Baobab ñoom foofu la ñu dëkk waaye di am mbégte contentement bu baax ci Jaminatu Diallo bi nga xam ne nag mooy def anniversaire am di di ku yàlla baaxal di jigéen boo xam ne ku sopp émission Kouthia Show la waaye di ñu tamit Thérèse Goudiaby yaayu bébé Oriane chéri Jean-Marie Walas ñoom Awa Sène nekk ca kër ga Aïda Ménard ñoom Rosalie Sambou Awa Sow ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di nuyu sama xarit Dominique Goudiaby Antoine Minek Jean Goudiaby Angélique Madiani ñoom ñëpp samay xarit nañu di nuyu tamit Serigne Abibou Mbacké fils de Serigne Idali Mbacké soxna Mam Mbaar Mbacké ca Touba ngi koy def moom mooy seeti ki nga xam ne moom mooy euh, suñu xarit euh, di euh, Ibeka waaye boobu nag ñu ñu ci def nag moom mooy seeti Ibeka Euh, Ibrahima Boubacar Keita bi nga xamee ne Alpha Condé yëkkati na kaddu yooyu ne wax dëgg yàlla Sénégal li mu def def ko ñaawlu moom IBK nga xam ne nag dox jàmm rek ko tax a yëkkati na téléphone dox jàmm ci diggante Sénégal ak ki nga xam ne mooy Guinée woo na Alpha Condé ba calmé ko woo na Macky Sall ba calmé ko li des nag moom mooy ñaari président yi tase ca Mali waxtaan li nga xam ne mooy jàmm kon nañu seeti IBK bi nga xam ne moom mooy euh, président wu Mali IBK mi nga xam ne nag wax dëgg yàlla panafricaniste la ndax def na lu rafet ci ñaari diggante yooyu pour frontière yi a jege moom ñu seeti ko bi naanaa ibe ka benana eh ibe ka benana eh ibe ka benana ah ibe ka benana bonjour bonjour bonjour Salam alaikum leerulu il buguna Sénégal diggante Sénégalais ak Guinée jàmm rek la Sénégalais ak Guinée jàmm rek moo amul benn nit mënu yàq diggante boobu du amul ministre affaires étrangères bu Sénégalais man Kër Ndiaye wax na ko wax naa ministre affaires étrangères bu Guinée monsieur Diallo wax na ko ak moom wax naa ñaari président yëpp ñu bokk ndey ak bay Bakele fii naa ana ka Bakele maa ngi amoon mbégte bu bàkki parce que boo wax Mali wax nga Guinée Sénégalais ak Mali. Sénégal ak Guinée bokku ndey bokk bàyyi man a gis na Sénégal ñu sant Diallo gis na olof bu sëy ak pël gis naa pël bu sëy ak sénégalais ñoo bokk ndey ñoo bokk bayi na Sénégal yi respecté Guinéen parce que Guinée dafa ñëw dimbali économie Sénégal yi mu ngi jóge fii dem Italie mu ngi daane dooleem mi Guinée mu ngi jóge Guinée ñëw Sénégal mu ngi daane doole su ko nekkoon mu dem Italie waa dafa ñëw Sénégal suqali dimbali sénégalais pour économie mu demu kanam bu ko yàq bul kenn yàq diggante union africaine mënul amu bu fekkee ne dëkk yi jubawuñu nañu ibbi frontière yi bi naka foroxaturaana je suis vraiment désolé bisimilla karim fa i bisimilla ni tala sɛbɛnni kɔrɔ i bisimilla manɛntigi i bisimilla walayi i bɛ ka i bisimilla ni tala mali i bisimilla joyina bonjour je pour dire que le et guinée on doit faire les diggante parce que c'est des pays bilatéraux y a pas de problème mana nag dégg naa olof yàlla bàkk na ma ma ma dégg olofu waka na Alpha Condé wow naa ko léegi waka na amul problème bàyyi na lépp mu seddi Guinéen mun na dugaate Sénégalais mun na dem jàmm ama sa diggante parce que moom moo ma ne nekk la président boo xam ne tant que jàmm moo tax a jokkoo maanaam parce que bi Mali tàkkee Guinée indi na militaire Sénégal indi na militaire militaire force africaine bu ñu fa nekkee du ñu xam kan nationalité la ñëpp du ñu def jàmm pour Afrique yi pourquoi Sénégal et problème mu nit ñi am du ma ko nangu. ina ka braga ni ko mandero wale an bɛ sibi n'an bɔra sibi an bɛ taa bagumana n'an bɔra bagumana an bɛ taa kita n'an bɔra kita nin bɛɛ ye manden ko i mana président la doko wayani ba ci bi fula aka fayda bakana ana duruhunu ana ka furuho buruhana duruhunu ebola senegal guinée kuna ka furuho duruhuna mana ka farahani ana kessioni barahana kani furuho ko ibeka ina aha ni menko ina na senegali ko senegal ni uh, la guinée ni dakaw uh, ka khaira uh, ka khaira soro wara soro soro -huh. ana fro ana fro soro aha soro droit aha ma i b'a mɛn n b'a kɛ ana ba ah. buro kɔnɔ sénégal guinée kana fɔ ka to ah, sénégal guinée ɛɛ eh. anaw munu ka buro kɔnɔ durukɔnɔ i b'o ka furuku njugubu ana ka duruku nduruku sénégal mara ko njugubu buruku durukɔnɔ sénégal kirikɛna njugubu ana buruku duruku manaka buruku njugubu baraha furuku mali sénégal guinée njugubu ana furuku na faraka daraka sénégal guinée njugubu. duruxu duruxu sénégali jine karaxa duruxu njugugu ana praxa duruxu fa ana nuru njugugu question ni barana question barana euh, monsieur le président i laxaro parce que an y'a ye sisan mm. alpha conté a dimina Alpha Condé ko Macky Sall les frontières datugu i donc sisan e hakilina ye mun ko la sisan parce que malien ko ko guinéen ye militaire ka taa ka pas le pays voilà ana buruxu daraxa uh-huh. buruxu uh-huh. mana buruxu uh-huh. sénégali guinée ana frontiére natatuwesa wakechukudisa frontiére natatuwa wakechukudi président olu ah, frontiére ke frontiére sénégali sénégali ni guinée frontiére frontiére ah. a fɔra ko sénégali mali ko kene ka fɔra ko toro nana ni ko normali ah. ah, banana ko bɛ kɛ cogo di ana banana banana kɛ bine ka fɔra ko banana sénégali firikana e bɔra kina ka guinée ah. makisi ali ka frontière e b'a mali conseil kine kana man kerjayi affaire étranger bara ha doro ko jogodo ah, o maɲi o bara hani persone ina lavraha ana kesine kanata rapidement di shogo no pri kas nko ibeka president ibeka era nko ele uh, uh, la Guinée bola be mbake sisa e eh, eh, uh, iba fe la Guinée e eh, Sénégal ka ah, ke kelen ye ah o oh, ya nyenya de ana ko ya dina na ko ko do ana na mabro ko naka ana kina ma kele mana ko do ana bara hani ka turu mana ko may jama nañu def fo ak re ñu xam ne jama jeex na jama jeex na lépp jam na ina ko ñu taasu ko Afrique ñëpp xama taasu bi ñu moytu njugubu lii yëpp njugubu moo ko indi nañu bàyyi njugubu suñu bàyyee njugubu rek feebar Ebola bàyyi na musul dégg Ebola fii ci Mali parce que duñu lekka njugubu kon ina ko boro droit njugubu mana boro droit no ko njugubu ana bi ko hore sa ono bɛ k'a ni accéléré i bɛ k'a ni farakana duruku i bɛ k'a ni jogobo farakana duruku i bɛ k'a ni fɛ jogobo i ni maa bɛ ko i bɛ k'a ni buru i bɛ k'a ni bɔ i bɛ maa bɛ bɔ jogobo.